mais nak li mom Ousmane Sonko un scandale du jour de ce jeudi qui lolu ki di Aïssatou Diop Fall mom nek ci def analyse bopam ñu déglu ci ko ñëwaat. le président ne président le président manque de respect et de tact. et de finesse intellectuelle. le président qui n'est pas là. le président. Hmm va, va dissoudre. Va hmm. remercier, va remercier les présidents du HCT hmm. et du CES. Il n'y aura pas de motion de censure au Sénégal. Ana porte-parole au gouvernement, ana porte-parole au président ana Il a quel manque de respect, quel manque de pour les institutions. Hmm. Mais quand on respecte les institutions, les gens, d'ici

Kats Dioki mooy démb euh, li ñëpp euh, officine am ak presse am parce que c'est lui qui a sa presse ak presse am meeg yooyu lu ñu wax ne de dañoo def réduction des comptes Moi, mon règlement de contrôler lay def. règlement de réduction c'est règlement de règlement de contre lay pour. ak vente il vient d'avouer à la face du monde. Mm. que c'est un autocrate c'est pas un mm. démocrate. parce qu'il mm. dit que. uniquement pour que ñii waa benn bokk yaakaar ñu tiit ñu jaxasoo mhm. ba su ba suba duñu dinañ tal leneen lu dul joxe koy traîner moom devant euh, man xamul tax moom mu am psychose assemblée nationale mhm. mooy képp ko xam ne mës nga faa laale dina la yóbbu tribunal mhm. tëj la prison pour yow pour pour moom mu mën a dérouler nice au lool loolu la wax fal na ay juge am fal na ay na léppam léegi na li des mooy règlement de compte pour que ñii bu subaa il hmm. dem dugg ñoom ñëpp prison nga xam ne kenn dootu ko talati moom Ousmane Sonko seen bopp la nuy tal hmm. waaw na def loolu ba xam est-ce que dina tax mu am jàmm ci réew mi mais xoolama yi man et puis vraiment c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux qui n'a euh, euh, qui n'a euh, absolument aucun respect hmm. pour le Sénégal et les Sénégalais qui c'est malheureusement le premier ministre du Sénégal le roi du Sénégal qui n'a aucun respect pour le président de la République qui parle pour lui qui parle à sa place et qui nous montre que c'est lui qui dirige le président de la République. C'est extrêmement grave. Mm-hmm. Il n'y aura pas de motion de censure moom day wax lu ko ce loolu du ci loxoom la nekk moo tax Thierno Bocoum on verra bien si toi Ousmane Sonko tu es au-delà de nos lois xam nga ni au-dessus de la loi mais ce que est Ousmane Sonko est au-dessus de nos lois et c'est ce qu'il a toujours prétendu te dafa jàll hein. donc bu waxee lii aussi am na peut-être fu mu ko teg am na fu mu ko teg nee na am na ñoo xamante ne dañoo daw génn am na ñu rëcc te léegi nag waaw moo tax épingle ça veut pas dire sàcc nga yow dangay xupp rek da ngay mbuu rek beneen bi ci topp président dina ci jël décision même pas une heure de temps ñu gis communiqué bu Nous xam na que nous dañ leen on les a diminués de leur de de de leur fonction dañ leen diminué ci seen ko fonction nekkatuñu foofule jëlé nañ leen fa muy Aminata Mbengue Ndiaye une femme brave qui a servi le Sénégal Abdoulaye Daouda Diallo kon nak la question qu'on doit se poser ou bien la question qu'on se posait kan mooy président yaakaar naa démb am nañu réponse bi kan moo nekk di diriger démb am nañu réponse bi waaye kan mooy jël décision yi nga xamante ne saa yu suñ ko jëlee appliqué ko loxo dem gémmiñ xam nañ ko man nag bettuma personnellement bettuma parce que mosul wax lu baax quand il s'opposait mosul def lu baax quand il s'opposait donc du tey la koy def lu dul sa habitude munoo ko def lu dul sa habitude munoo ko def quand tu as l'habitude des micros et des caméras buñ la ko de faire un deux trois da ngay dem do sa tatoné mais bo amul habitude bi buñ la ko as l'habitude, moytul di nga réplique trois fois ba quatre fois il n'a pas l'habitude de faire de prendre des décisions responsables il n'a pas l'habitude de poser des actes responsables te du tay la koy def malheureusement du tay ñu koy xaar nag wax dëgg fa yàlla di xaar ba xàddi mais je pense pas que di ngeen ko gis ci premier bi dégg naa ay nag ñu ne nag nee na day dem léegi day dem defi déclaration de politique générale ñu ngi koy xaar ñu ngi koy xaar loolu la ci loolu lañ koy xaar même si c'est trop tard loolu lañ koy xaar ci loolu lañ koy xaar gis nga nit li la war bu boo ko wàccee rek ñu xeeb la sa wareef boo ko deful dañ lay xeeb Youssou woy na ko boo defee li la war boo deful li la war da ngay ne yàcc ni yasar Ousmane Sonko dafa waajul sax jéemul sax def lu ko war moom premier ministre qui laa man man man man man man man xaw ma sax man non Sonko.